bokki yi xarit yi nee na leen ziar leen bu baax a baax ñu am mbégte kontaan te ñëw yéen seen euh, première chaîne de la banlieue di IM télé international media TV mbokk yi ñëwaat ak yéen seen émission Top People comme ni ngeen ko xamee nag tey ñëw ak yéen si spécial Gambu ba tax ne rek fa lay jaaree ah dugg biir Tiwaawan di nuyu la xalif ah euh, kuliti yaan muy euh, ki nga xamante ne moom mooy sëñ Mbaye si Mansour ah ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal ah jàmm ak salaam waaye di ko ñaanal gudd fan wér ak wér-léeg. ba jumaa ji nga xamante ni actuellement nii mën nañu wax ni li si des bëreetul ah, na ko yàlla yàlla na yàgg a teewee ah ñu fay julli ba tax na rek ma dugaat rek fi nga xamante ne moom mooy biir Fass du nuyu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy ah sëñ Mansour ah sëñ Mansour si euh, Jamil ah ak sëñ Ahmada si ah moom it ñu di ko ziar baax baax di nuy sëñ Habib si da baax waaye di nuyu ah di nuyu aussi tamit sëñ euh, Mbay si. ah dabax ah, seigne maodou si dabax ñom ñep ñi ngi leen nuy di leen ziar bu baaxa baax mbokk nak comme ni ngeen ko xamé nak spécial ah, gamb lañ wax ba tax na dañuy jëkke ñew tay mbokk yi ci ci mohammed allah diop bi nga xamanteni gis ngeen gis ngeen mu gënne li nga xamanteni mom moy tidiane la bëgg doon mu nek clip bi nga xamanteni ma sha Allah gis ngeen tidiane yi dañ koy dañ koy bëggee bu baaxa baax nek doom ci allah diop gis ngeen nak mu nek clip bi nga xamanteni damay wax ni ah, gaay bëggee nañ ko baaxa baax bo leen xolé à travers youtube gis ngeen euh, gars yi laay teen nañ ko bu baax a baax mu nekk xale boobu nga xamante ne moom mooy euh, Mouhamed euh, Alla Diop moom it ñu koy ndokkeel bu baax a baax ci gàmm gi nga xamante ni ah ci lañ jëm muy dimanche mbokk bu ñu jógee foofu nag comme nag spécial gàmm la ñu wax aussi ñu ñëw aussi tamit ah ci beneen jeune bi nga xamante ni moom it mi ngi def liggéey bu am am solo nga xamante ni dafa dem ba xale sax tuddee ko ki nga xamante ni moom mooy Mbappé ah muy Aboubacry Samb Aboubacry Samb moom nag gis ngeen fu mu génn la lumière gis ngeen mu ciy way ki nga xamante ne moom mooy euh, Serigne Babacar si ah euh, radiallahu taala anhu ah Aboubacar Sam gis ngeen clip bi nga xamante ne moom it euh, def na ko mu nekk koo xamante ne dañuy gis ni ah originalité bi nga xamante ne dañ koy gis nga gis ni euh, chaque moment dañuy gis euh, mu jël euh, benn ah benn kër ah fii ci ci kër diine yi mu nekk loo xamante ni vraiment moom mi ngi ciy def liggéey bu baax a baax muy Abdou Bakri Samb fa laa jaaree mbokki rek di nuyu nag sama mbokk waalo waala yëpp nga xamante ni waxtu wi nga xamante ni maa ngi waxtaan ak yéen si spécial gàmmu ah ñi ngi foofu ca Teewaawan ci dalu ndomba sama mbokk waa ndomba yëpp ah sama mbokk waala waala yëpp mbokk dagan waa dagan yëpp ñi ngi leen ñu di leen jaar baax a baax waaye di leen ndokkale ci gàmmu gi nga xamante ni euh, fa leen jëm waaye delluwaat ñaanalaat xalif bi nga xamante ni macha allah sagu tijaan yëpp waaye delloo ñaanal xalif bi nga xamante ni vraiment dañuy am mbégte bu baax a baax saa su nekk di ko tudd muy euh, sëñ Mbaye Sy ah sëñ Mbaye Sy mu nekk koo xamante ni vraiment bu ñu xoolee vision bi nga xamante ni am na ko ci biir dañuy rek dañuy wax rek ñu koy ñaanal ah yan vision yëpp ak si jàmm ak salaam ba mu yàgg ko teewee boo yi fa lay jaaraatee ñëw nag ci xale yi nga xamante ni. ah damay wax ni sët lañ ci euh, suñu maam Mbay Donde muy euh, ñaari xale yi nga xamante ne moom mooy euh, ah, moom mooy Baye Mbay ak ki nga xamante ne moom mooy Ahmadou Mbay ñoom it macha allah ñu génnee lu am solo loo xamante ni clip di ngeen ko gis mu nekk ay xale yoo xamante ni actuellement nii gis ngeen ñoom ñoo ñoom ñoo jël relève ñoom Pape ak suñu papa Doudou Ndiaye dundu dundu kenn mbay mbay ci famille boobu lañ bokk macha allah ñuy def ñoom it xale yooyu di def ah, lu am am solo ndaxte à travers bu ñu xoolee. li nga xamante ne moom youtube bi di ngeen gis aussi tamit ah nit ñi dañ leen di taalibe cheikh yi dañ leen di dañ leen di bégee bu baax a ha? baax. waaye mbokk yi duñu fàttali nag ki nga xamante ni faral di wax ni sagut. waaw waaw mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek ah ñi ñaanal bu baax baax ki nga xamante ne moom Abdou Aziz Ndiaye bu Baye Alain Ndiaye moom it ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni gis ngeen ko ñu ngi koy def foofu ca Tivaouane. ñu koy ñaanal yàlla rek Aziz yàlla na yàlla may gudd fan wér ak wér le ba lépp li nga xamante ni yaa ngi koy rek. suñu borom gën la cee may yokkute waaye suñu gërëm suñu borom gën la cee may doole ndaxte macha allah damay wax ni yow saguwaa Tiwaawan nga ndaxte dëgg la say at bëriwul waaye nag euh, yaa ngi def liggéey boo xamante ne macha allah da damay wax ne rek yaa ngi motiver génération yi nga xamante ne tey ay bi Cheikh lañ ci euh, si sa euh, ci si njariñ bi nga xamante ne am nga ko foofu ca Tiwaawan kon dañ lay ñaanal yàlla rek lépp loo xamante ne mën nga ko ren rek yàlla nga mën eh, nu ko ëpp deewoon ndaxte macha allah yaa ngi def liggéey bu am am solo mbokk fa la ñuy jaar rek ñëw eh, ci eh, xale bi nga xamante ne moom it mi nga dëkk foofa ci maris muy ngañ mbaay ah moom it gis ngeen muy rendre hommage ki nga xamante ne moom mooy ah, bi moom gis ngeen muy clip bi nga xamante xale yi ñu koy ah ñu ngay xol bu baax baax ci li nga xamantene mom moy ci ah youtube bi ngañ gis ngeen ko machallah momit gis ngeen ko de ngeen koy gis plateau télé lu bari bari mu ne ko xamantene machallah momit ku ama ama ah, talent la mbokk bu ñu joggé fofu nak ah, li nga xamantene mom lañ koy tejé muy damay wax nag muy ah, ah, suñu suñu so suñu soxna si nga xamante ni macha allah ah, fu ñu nee turam rek ne ne maam Baye mu nekk ki nga xamante ni moom mooy mooy Aida Aida Aida Faye bu Aida bu moom it macha allah gis ngeen bi nga xamante ni génnoon na ko ñu suñu ndokkeel baax a baax suñu mbokk ñeseen yi nga xamante ni damay wax lépp rek si taaliba Cheikh ji la muy Aida bu maam Baye moom it muy clip bi nga ni macha allah génnoon na ko di si nga xamante ni moom mooy suñu maam Cheikh al Islam moom it Aida ñu koy ñaanal bu baax a baax macha allah yàlla na yàlla dana wéral euh, baat bi mbokk en tout cas li na leen andiloon tey seen émission ah Top People may jaajëfal bu baax a baax ah, mbokk mbokku taalibe cheikh yëpp muy tijaan murit xaadir laayeen ndaxte buñ ne rek euh, guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ñëpp ko bokk waaye nag buñu nee gàmmu yàlla dafa def ni xel yëpp day dem ci fi nga xamante ne moom mooy ci euh, Tiwaawan euh, ba tax na rek kon ñi ngi euh, ndokkele suñu mbokk taalibe sax yëpp mbokk yi may jaajëfal ku nekkoon ci cadrage bi muy le salaam du ma fàtte nag sama mbokk waalo waalo yëpp di ndokkele ah waa IM télé yëpp di wax émission tay bi nag ñu ngi may ki nga xamante ne moom mooy Aliz Aziz moom mi nga xamante ne macha allah damay wax ni rek fu ñu toll dañ koy ñaanal ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci Tiwaawan ñu lay ñaanal di ñaanal sa njaboot yàlla na si yàlla yàlla teg loxo lépp li nga xamante ni yaa ngi koy liggéey foofu ci Tiwaawan mu nekk loo xamante ni suñu borom da koy ful mu doon mbégte euh, bu baree bare ci yow kon bokk li na leen indiloon seen émission spéciale gàmmu ñu leen jox dig daje incha allah tres très prochainement incha allah jaajëf